asalaamaaleykum mbokk internet yu Sénégal TV maa leen dalal ci jàmm comme ni ñu koy defee saa ne ci émission bi nga xamante ne nii moo di euh, nekk nu jigéen comme ni koy defee tey nag euh, maa ngi fi toogal ki xamante ne moo jaral toogal comme ni ma leen ko waxee sànq ci suuf nee naa léegi kër jeeg ji lépp loo xamante ne nii rek moo nekk ci kaw taabal bi man maa ko yore mi ngi fii ci sama loxo te it ki may jàkkaarloo xam na ko bu baax dafa may jox rek ma daal di ñëw joxaat leen ko ci tekk ak tey ndànk ak dal ba ngeen mën a am lu ngeen bëgg may dalal sama madame Thioye madame Thioye nuyu di la dalal maman maa ngi lay fay chéri namoon naa la. maa la raw di nuyu suñu mbokk internet yi. Mm-hmm. di xam ne ni nga ko waxee rek noonu la. Mm-hmm. franchement fi ne moom kenn ëppaleetu la ci yaa ngi ci biir. voilà di remercier Sénégal TV. Mm-hmm. di remercier cliente euh, Kër Jeeg ji yépp macha allah. ñi ñuy jox nopp ñi ñu safoo ñi ñu faale xam nga ñi ñuy toppatoo ñiy xool ci ñun lu bees. ñi doyloo suñu xel di ñu laaj ay conseils et tout wax dëgg yàlla ñoo ñu fi bàyyi. maman ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen gën a yaatal di leen gën a dalal ci kër gi. Mhm. di leen wax ne kër jeeg gi moom ku sentir sa bopp ci jeeg saf ko rek yaa ci biir. kon nag amul frontière. Mhm. amul tàggoo. na ñëpp ñëw ndax cëpp ci lañ bokk. na ñëpp ñëw te ci lañ bokk foofu la madame Thioy daanalee man ma daal di yëkkatee li nga xamante ne moo di temu tay bi mu nekk euh, jigéen ñi nga xamante ne nii ñu nekk si biir néegu sëy mm-hmm. ni ñuy maanaam jàppee seen borom kër yi di ko def comme mose fobeere mm-hmm. tey ci loolu lañ fas ne waxtaan madam Thioy mm-hmm. nga am ci xam-xam boo xamante ne macha allah internet Sénégal TV koo ci mës waxal ku ne bàyyi na la xel te dina la déglu dina topp say conseillers madame Thioy tey ci thème bi mm-hmm. thème boobu noo ko jàngatee waaw moment thème boobu dama ne laal nga lu am importance. Mm-hmm. en plus indi nga thème boo xam ne damay ragal tey bu buñ ci doon débat ba ba suba du jeex. dëgg la ndax euh, maman ñu ngi sant yàlla xëj na bi ñu commencé li yàggul noonu. Mm-hmm. mais ci suñu xel mu gàtt yàlla ñu ciy may ñu ngi tase ak ñeneen ci problème yu demee noonu. ñu ci dolli expérience boo xam ne. Mm-hmm. mën naa ne tey am na problème yu baree baree bare yuñ ci maîtriser. Mm. ci loo xam ne créé wuñ ko mais nit ñi ñoo ñu woo di ñu confier seen bopp. dañuy xam ne foofu la demee moo tax euh, boo ñëwee ci tam boobu dama ci sawar ndax pratiquement dafa bari problème maman. dafa bari problème. trop pour yow problème bi fan lay jógee. problème bi maman wax nañ ko ndax jigéen tey boo ne ma jigéen bu jàpp jëkkëram def ko mos fabere kaay man damay commencer par subhanallah parce que macha allah maman ñun bu ñuy yeb ci suñu kër yi pour ñu dem ci suñu kër borom kër yi sédéal dañ naan mm, sa sang la loolu ngay faral di dégg dañ naan la jëkkër du morom sang la mhm. en quelque sorte loolu dafa wundu lépp ndax tey kuy sa sang kooku mooy sa sa sa buur mën naa wax loolu mm-hmm. mooy sa mooy sa kilifa mm-hmm. mooy ki lay dugal mm-hmm. àjjana mooy wallaahi xam nga dafa bëri facteurs yu laal loolu ba nga xam ne mu sensible sensible ba nga xam ne parce que relation mën na neex ñu permettre ci lu ne te du am dépassement xam nga jigéen bu am xel lu ko borom kër mën a jox ci li mu moomal boppam dana ko téye gérer ko waaye du indi dépassement du indi débordement mhm. waaw loolu nag ku am xel lañ koy wax parce que tey jigéen ñi bari na ñoo xam ne koo ci tànnal ceeb balaa jant be so mu foog ne force la bu ngoonee mu xolli loola soble wala mu tracé loola pomme de terre <laughs> non dëgg la ko ci wàcc yërëm ko rek nag boobu ci chéri tey damaa teel a <laughs> eh, eh, eh, foo toll ci añ bi nga ne ko ñulug naa ana sa ceeb mi ngi nii indi ma ma toog nii tànnal la mhm. nga ne daf cee baax de mhm. mu tëye ceeb bi tànnal la ko macha allah boole ko waxtaan bu neex ba jant bi soo boo xefee bu tëddee di nelaw après midi bi yaa koy yee ne ko euh, pomme de terre bi mhm. kaay xolli pomme de terre bi wala kaay tracé ko dama war a taal waaw parce que loolu la ñuy wax ñàkk xel mm-hmm. ndax jigéen tey war na mën a partager ak lu nekk borom këram te du yegg ci dépassement du yegg ci yabeel mm-hmm. ndax euh, miinante ak kaf ak ree ak doomu bàjjanante ak yooyu dafa mm-hmm. neex torop ci kër ah. waaye nag yeggul ci yabeel mhm. parce que mos xabarekaay bi nga wax noonu mama man sax daf ma tiital ndax dafa rëy dëgg la dafa rëy torop dafa rëy dafa rëy torop may ñaan jigéen ñi ñu ci bàyyi xel di ko moytu bu baax a baax a baax li ma la wax mhm. rek parce que buñ ci dee débat franchement thème buñ ci commencé partie buñ ci commencé rek mën nañ ci fanaan ndax jigéen ñi dañu xaw a doy waat ci benn côté ci ñu ma ko sañ a wax mhm. te mama nañ waxante dëgg waaye sëy yi dafa xaw a des sëy yi dafa xaw a des. ci ban côté la xawee des madame Thioné. déjà wax nañ fi léegi respect. Mhm. xam nga. góor tey damay ne boo ak mom ci biir kër. Mm. quel que soit ses compétences xam nga lu ma tuddee ses compétences. manam mm-hmm. muy poche parce que góor léeg-léeg mën na ñak doolé xam nga góor mën nga nek ak mom du am doolé mm-hmm. nga sax ëppalé ko mën na nek mais loolu du télé cër bi ko yalla joxoon ci sey bi ba légui moko yor. Mm-hmm. voilà te du dañ ba faw sax du dañ ba ila yow mi diin. du dañ ba ila yow mi diin au contraire damay wax né koku pour nga jaamu yalla ci mom mo gëna yomb. parce que bu la yàlla tasalee koo xam ne peut-être. yaa ko ëpp doole mm-hmm. tey jii pour nga góor góorlu defal ko loo xamante nii ne da ci am tiyaaba boo xam ne dina la topp ba àjjana dafa am importance parce que tey ki ne la gaañi sax xam nga def moom toppul ci ko am wala ko amul ndax tey sa borom kër du li ngay jënd ci sa poche di ko jox loolu moo tudd def def mm-hmm. parce que tey <clears throat> mën nga ko jëndal jes neer bu rafet ñawal ko boo amee njëgam mën nga ko jëndal maraakees yu rafet jox ko mu sol waaye day fekk nga am njëgam. xam nga bu sa da ci kontaan maman mais loolu dafa am lu ko ëpp importance xam nga loolu côté matériel la. parce que tey ki amul loolu yëpp tey même bu rombee benn sous-vêtement bu nice. Mhm. Euh, mu tàngaay bii mu sentir ci borom këram jënd ko dem parfumé ba mu baax mu sangu mu tegal ko bu ko solee am na ci mhm. tiyaaba. xam nga te loolu maman sax ba léegi ci côté def-def bi la bokk mais soumission. jigéen dafa war a soumettre parce que ñun loolu la ñuy jàngal loolu moo ñu lan nga tuddee soumission maanaam nangu jigéen dafa war a nangu parce que dafa am loo xam ne ñun du ñun yàlla la yàlla moo ñu jigéen dafa war a nangu dafa war a nangu ci bépp fànna mhm. ci lépp lu neex yàlla waaw lépp lu neex yàlla parce que mm, sëy bi maman lépp lu ci yàlla daganal ci biir sëy bi mhm. war na la te topp na la te du la wàcc même boo màggatoon du la wàcc kon nga xam ne kon ba ba ngay dee la mhm. te responsabilité boo xam ne dañ la ko jox mu topp la ba ba ngay dee dafa am noo ko war a gérer mhm. te dañuy wax ne ku ñuulub sa jëkkër yekk sa doom ñuy ñaan yàlla jigéen ñuy bàyyi xel torop ci loolu mhm. su ko defee delloo si xel yi sëy jéem a sëy sëy bu rafet toppatoo borom kër yi xam nga di daw ci li leen neex ndax nee naa la maman ku ne yàgg na xam sa bopp janax noo mu ngi noonu yàgg na xam sa bopp janax noo koy tojee yaa ko yeggali sa bopp <laughs> maa la ko yeggaleel noonu voilà parce que xam nga moo tax xam nga nit boo yàggee moom bu yëkkatee sax nga xam fi mu jëm waaw am na euh, ménage yi bëri na problème mais ruq boo laa rek am na fu muy tàngee mhm. may ñaan yàlla jigéen ñi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax di góorgóorlu ci ci ci ci déggal leen mhm. balaa ñoo dem ñuy tàggoo Mhm. balaa ñoo sax wax yenn wax yi ñu diisoo ko ak seen borom kër ba pare foofu doguma la est-ce que nekkul ñàkk tàggoo boobu mooy waral di indi lu bëree bëri ñàkk tàggoo bi mooy ñàkk communiquer rek xam nga nit da ngay gis léeg-léeg góor ñi ñu mhm. naan sama jabar man maa ko yilif mhm. yilifu ma mën naa def fu ma dem fu nekk rek dinaa am jaam parce que su ma tàggoo su ma tàggoowul yëpp man maa moom sama kër maa koy gérer sama jabar man maa koy dundal. kon aw ma benn droit di ko tàggu et tout. est-ce que ni cause bi ci góor ñi. tàggoo bi non non ma parce que tàggoo bi góor góor mama moomam boppam wax na wax dëgg yàlla. dëgg góor kilifa la tey mën nga nag respecter sa soxna tey jii ba foo jëm. Mm-hmm. wax ko fu mu doon. bu ngeen ànd tit bu la fa làmbee fekk la fa parce que ay urgence ak yëpp mën na am mhm. te xam nga diggante confiance daf ko war a lal ndax daf ci am trop aussi importance mhm. ndax jigéen tey ni muy respecté borom këram noonu la borom kër di respecté jabaram waaye du nekk nag ragal mhm. du nekk yi tamit leneen lu ñuy tuddee leneen lu munti doon parce que tey interprétation yi bari na waaye ñu xam ne bëgg ànd rek la bëgg a defar kër parce que ñu bokk kër foog ñuy wax foog ñuy communiquer tey war na tey ji sa borom kër bu ñëwee nit laaj ko tey nga war a xam fan la nekk jaadu na trop jaadu na même boo àndut ak moom dem war nga xam tey fi mu nekk mhm. te loolu moom moo la koy wax c'est pas parce ko war a yeb wala da koy toppale da nga koy surveiller déedéet mhm. parce ay nit bu ñu nekkee am na fu ñuy toll dootul am frontière ci côté boobu mhm. mais góor man su ma dikk ne warul sax di tàggoo mën na respecter jabaram nag yëgal ko waaye ñun ñoo am am am am charge boobu en quelque sort mhm. ñun ñoo war di jóg di dem di tàggoo ba ñu bàyyi ñun mhm. xuma yëgle de parce que maman ki jóg sol mu bom ba mu baax mu takk mhm. ay dàllam xeeñ parfum bu neex def tagalam bu baax mel ni ma madame Thioye ne ko ma dem fii te ñëw loolu tàggoo maman non non yëgle jeex na xam nga boobu yëgle la te góor lu mu lu mu lu oyof oyof mbubbu kilifa la ci biir kër dëgg la da nga ko war a respecté jox ko cëram ba mu ma jigéen war na wax ak nit ci téléphone sax ba yegga ñëw ba si jëkkëram ne ko nangam ak nangam tàgg ko ci loolu ba mu xam ñu invité ko mu tàggoo ñu jox ko rendez-vous donte yaayam a ko woo mu ñëw tàggoo ba am ci lu luñ ko bàyyi teg ko ci fu leer mu door a dem warul fu ko neex dem sa tàggoo parce que tant que mu ngi ànd ak sa permission jëkkër amul problème mhm. mais bu demee ba réeroo commencé am foofu rek problème judd ci biir kër gi voilà am na solo comme ni ñu koy defee saa ne nee naa la kii mooy madame Thioye lépp loo xamante ni dalaa réer ci biir ménage rek da ngay daal di jokkoo moom bu ko defee mu daal di lay wax teg la ci yoon bi expliqué la comme tey thème bi ñu fi indee gis ngeen ni mu demee doy na waat torop mais madame Thioye balaa ñu dellu si waat ci thème bi man tey dama fee gisati li ma jaaxal mhm. comme d'habitude mhm. que jeeg ji nee naa leen man maa ko moom ñun sama biir loxo mhm. maa ko moom fii laa ko def <laughs> madame Thioye tey ci lii laay njëkkee ah parce que yii nii dafa mel nii yu bees tàkk tàkk la yu bees tàkk la gisal sa bopp mm-hmm. <coughs> en fait fekkee ci boole samay samay gaay en quelque sorte parce que dañu ñëw pratiquement bi may daal di déranger mm-hmm. ngeen yegg si man naa ci tibbati ay échantillon teg mm-hmm. pour sama mbokk jigéen ñi daal di gis parce que euh, tey ñun li ma lay wax rek ñun daanaka ci actualité la ñuy dox ci côté boobu parce que jigéen ñi ñoo may woo di ma laaj ay bagage li ñuy soxla tey ku ma ci laaj bagage bagage boobu bu ma ko amul dinaa def en sorte que mu am ko parce que xam nga ki la yaakaar ñëw poser la problème am mhm. kooku mënoo def lu dul dox ci yow xam nga foo ko mën a jëlee moom xam ko mhm. te wóolu na la tey bu lu jóg ci biir këram lu jëm ci néegam lu jëm ci sëyam lépp yow la ci gannaaw yàlla affaire mhm. ñu nit kon nag ñu war a jóg nag sol suñ dàll maman lépp lu jigéen di soxla ci biir néegam lépp lu muy soxla ci neexal sëyam lépp lu muy soxla ci juboog borom këram macha allah mu ngi fii ci kër jeeg ji mhm. ndax ku ne kër jeeg ji wax nga lépp ku ne kër jeeg ji xam ne wax ne ñun moom ci luy neexal ménage yi rek ci la ñu dox. am na man xam naa ci jeex na bañ nañ ko ba la slogan mooy pour réussir les ménages et les mariages. macha allah tey ñu ci sant yàlla bu baax. Mhm. ndax bés bu set fukki nit woo la ne dañ maa indi premier cadeau wala sama gars yi dañuy waxtaan si loo xam ci man. macha allah maa la dénk sama bopp ndeyale naa la sama naan maa la magale sama bopp non ñooñu dama leen di siis. ndey ji man doomu ko moom a xat nag. yii maman mi ngi a xat mu ngi a xat mu ngi a xat waaw ba tax na produit yi xam nga gis nañu yu bare ci table bi mhm. Mhm. mais pratiquement du ñu dugg ci benn cage bi xam nga lu tax mhm. ci tele la ñuy waxee mhm. te am na ci loo xamante ni ne secret de femme la en quelque sorte voilà suñu wéetee mënunoo waxtaan suñu waxtaan ma yow. mais na mel ni ma lay seen. waaw naa daal koy tegaat waaye sama sama sama caméraman sama club. <laughs> chez internet du Sénégal jigéen ñi yenn jigéen ñi. waaw am nañu ci uh-huh. ma lay seen. waa mi ngi nii ma daal di teg boo uh-huh. daal di contacter madame Thioye mu daal di la koy wan kon nañ ñëwagum ci waa waaw yi moom décor la maman. Uh-huh. yi décor la amoon na fi ñëwaat fii. macha allah yi ay déco mural la. ay papillon la. yoo xamante ni ne da nga koy da nga koy kii rek def ko ci sa mur. mën na dem ci mur salon yi espace familial yi chambre à coucher yi. néegi xale yi et partout gis nga ni muy mel. Mhm. mën na sax tege ci yenn parties yoo xam ne c'est métallique. lu mel ni euh, kii comment ça s'appelle fontaine yi frigo yi affaire yooyu. Mhm. parce que fi acier là. da ngay jël rek teg ci mu daal di collé wu wala am na benn col boo xam ne day ànd ak moom boo ko mhm. jëlee découpé ko tef taf fii taf mhm. ko ci miir bi gis nga dafay daal di mel ni benn euh, papillon bu naaw rek ba dal ci sama client yu bari xam nañ ko parce que fimné côté décor ma ngi ñëpp niroo kër ndax. kon internet Sénégal TV papio yi len daan rombu di dem. <laughs> wa gis nga ah, papio yoy moo nekk nii ci sama biir boutique. Mm, ma gis nga ko moom may borom. te képp ku ko bëgg ku nekk ni sama loxo ngay jaar ma daal di la koy jox. dank ni dank la la dëgg la dëgg la ma lay fee. dëgg la ak décor bu nice ma sha allah am nañ ci mm-hmm. couleur bu nekk aussi. bi aussi ci la bokk. wa bi ci la bokk mais bi chéri ay étoile la. waaw am nañu étoile lumineuse. moom boo xoolee euh, gis nga couleur bi ni mu mel am nañ ci multicolore vert ça dépend que sa décor yu mur ni mu mel voilà moom it même chose dafa ànd ak colom gis nga ko nii ni mu mel nii da ngay jël benn rek da ngay jël en fait paquet bi dafa am yu def cent am yu def cinquante mhm. gis nga ni mu formé woo nii gis nga ni mu mel voilà gis nga ni mu mel moom it même chose jant beeg weer waaw gis nga te maman li ci neex mooy da ngay jël col bi mu àndal def ci. Mhm. daal di koy taf ci mur bi. waaw waaye gis nga boo ko tafee ci mur bi le jour. Mhm. lumière du jour bi apparaître noonu. ak sa lampe yi tàkk ak affaire yooyu moom da mhm. koy capté. day chargé wu di chargé wu di chargé wu ba fees. Ah, gis nga bu guddi jotee ba yàlla xiir la ci fay sa lampe. nga mel ni da ngaa tëdd ci sa kaw terrasse. dootoo ko defati ci àddina ci plafond bi fépp ba néeg bi fees. <laughs>

boo déggee ni nga xamante ne moom la la madame Choy wax di nga ko daal di ñëw ut si fii daal di koy utiliser noonu mhm. ba tey jeexagul ah ñu ngi ci ay produit madame Choy kër jeeg ji mhm. waaye tamit samay produit ma mhm. parce que maa ko moom maay borom <laughs> dëgg la maman dama lay bàyyi boobu jël beneen waa gis nga ni ñu ko ci dessiné nii te yii aussi ay produit pharmaceutique la c'est testé dermatologiquement pratiquement gis nga voilà moom parce que bëgguñu dugg ci loo xam ne dañ koy jox benn cliente di am ak di am moom problème. problème voilà te tey lu ñu yéenewu suñu bopp duñ ko yéene ay clients. moo tax ak lu munti doon buñ ciy gëstu. Mhm. dañ ciy gëstu ci façon boo xam ne dañ ciy am lu leer suñu bopp. Mhm. bu ko jaree sax ñu utiliser ko testé ba pare. daa di nag woo ko ci table ji comme ni ma koy waxee. te xam nga réew dafa sonal sama mbokk jigéen. waaw dëgg la moom fuñ toll ñu ngi lay woo madame Thioye amoon luy dindi réew amoo luy dindi réew lu xale tuuti tuuti daf la koy wax lu mag kii kii xam nga mooy loolu suñu problème mu dermatose yi ñu am ni ba pare mhm. en fait diw yi nit ñi xewal ak yooyu ñun ñu dox ci mhm. pratiquement li produit boo xam ne la da koy utiliser danga koy diw partie yi def réew yi da koy fermer pratiquement da koy fermer. boo xoolee si kii bi sax. gis nga photo bi ni mu ko wanee gis nga mu daal di set wecc mu daal di set wecc dara dootu fa mu effacé tâche yëpp. ba pare nag gën a setal li nga xamante ne nii moo di. mooy sa yaram waaw parce que vergeture dafa sonal nit ñi. Mm-hmm. te moom la ñuy wax cellulite te moom day réparer peau bi ci sens yëpp. Mm-hmm. d'une manière franchement. mu nañ bàyyi nit ñi te jamono jii sax dafa sonal ñu bëri. dafa sonal ñu bëri maman moom laa lay wax non dañ dafa sonal ñu bari parce que mhm. tout le temps dañ may yow depuis ma publier woon savon yi ak huile yi. pratiquement nit ñi dañuy confier wu aussi ci problème mu dermatose. Mhm. mu leer na ne rek. Euh, der yaram yi sonal na jigéen ñi parce que dañuy bëgg mel nenn nii ba laal sax loo xam ne daf lay mujj amal leneen problème ñu moytu ma di leen ñaaxaat ci côté boobu baax ñu moytu yenn produit chimique yi mhm. moytu moytu recommandation yi parce que li jig maman mën na maa bañ a jig ñu bañ di laal yenn produit yi aussi ci yenn période yi parce que li valable tàngaay valable seddaay il faut facteur yooyu yëpp ñu di ko étudier di ci bàyyi xel bu baax parce que maman der bu yàqu dafa naqaree réparé yombul yombul xam nga loolu moo tax def le maximum di bañ a def yenn erreur yi parce mhm. dafay yàgg pour nga defaraat dafay yàgg c'est pas facile mhm. voilà gis nga dafa naqaree ba mhm. tax na lii moom macha allah dafa efficace boo ko defee di nga ci gis résultat dama leen di digal rek ngeen daal di ñëw fii ndànk rek ngeen daal di koy am ci anam yu gën a neex ci anam yu gën a leer te gën a set ndaxte lu yokk taaru jigéen daal ci la bokk. waaw xaw na la sori ma ma jottali la boobu. gis nga xamoon nga kon man ci laa jëm. waaw gis nga xam naa lool parce que gis naa yaa ngi koy xoolal rek te damaa xam ne sa moromi jaay rek la ñuy wër ñoom dafa bari seen produit yëpp pratiquement dañ koy defal à base de gingembre. ak a baax xam xam nga dafa bari ay vertu yoo xam ne ci biir moom. Mhm. boo ko recherché internet di nga ci xam lu bare. dëgg la bii nag moom xam naa ne eh, ñetteel yi sa ñaari da samay xarit ah. laa koy may. jël leen madame Thioye ñetteel yi wax tey tëb na aawa ah, tëb na ñaare man ngi ca ñetteel bu gannaaw suba mu dem ca ñeenteel <laughs> ñëpp samay xarit lañ ma nee naa leen man jéeg ji bëgg lu baax yëpp samay xarit lañ mm-hmm. moo tax fii pratiquement amul frontière ñun xamante nañ am na ci ñoo xam ne dañ naan la Euh, dama am ay am dama am ay naka la tudd ay poignée d'amour mhm. xam leen lan muy poignée d'amour euh, kii euh, maman mhm. dafa am dafa am jigéen ñi nga xamante ni seen ceinture yi daf leen sonal côté yi nii même buñ solee tey baas rafet waaw forme bi day day mujj yàq sa form parce que mhm. day day day xam nga rek ñun jigéen ñee graisse la yàlla xam doyen côté yi day def bul yoo xam ne moom lañ tuddee ay poignée d'amour lekk gu neex gi lañ topp gis nga rek waaw mais yooyu aussi taxaw nañ ci maman am nañ ci produit yoo xam ne fi la neex fi nga bëgg mu wàññeeku foofu nga koy def mu wàññeeku. gis nga bi green tea bi la moom moom it crème rek la yooyu yëpp ay crème la. boo diwoo sangu ba pare waaw gis nga dangay laal rek parti yi parti yi nga xam ne da nga bëgg mu wàññeeku nga laal ko fa mu slip da koy wàññi da koy rétrécir da koy shrink waaw muy biir bi muy loolu may wax côté yi noonu ceinture bi voilà mm-hmm. fépp foo xam ne da nga bëgg mu wàññeeku ci sa yaram rek mm-hmm. boo ko ci diwee dafay wàññeeku sama mbokk jigéen ñi gis ngeen yéen ñu bëgg a wàññi biir mm-hmm. lu mu mënti doon genre ñoom am si nga xam ne yow da leen a sonal. Hmm. ñëw leen jël lii utiliser ko baax na torop. macha allah voilà léegi nag léegi nag bii mooy contraire bii. Mhm. ma bii dama ne la yenn point yi nga bëgg a réparer sa bopp bëgg mu gën a wàññeeku. day dégraissé mhm. pour ñu bañ ñu comprendre day dégraissé rek. foo laamu sa yaram ni fii dafa waaw gis dafa jóg rek waaw nga sa bopp daal. tol tol yee comprendre <laughs> nag bii moom mooy contraire bii. Mhm. bii par contre ñi bëgg a wang waaw sama genre gi ñu bëgg a mel ni bokkoo ci non non non. ñu a mel nañ jàll ñeneen non gis naa ñu la gën a silim nañ wax ci ñooñu. ci ñooñu laa ndugal bii. tey baal naa waaw ñooñu laa ndugal bii dafa am mhm. mode d'utilisation boo xam ne moom nga koy jëlee. Mhm. boo ko dee jël moom tamit même chose day defar forme daal en quelque day defar formu mhm. te am moom it gis nga. à base de gingembre. gingembre ah, uh-huh. te it amul lu ñuy naan yëpp ay crème rek la. crème yi amul benn produit chimique amul benn effet secondaire macha uh-huh. voilà ñu ñëw ci biir nga xamante ni moom tamit gis nga. gis nga yaa ko gisal sa bopp mu ngi noonu ci kanam. lii moom dafa am ñu mu sonal itamit nag. lii dafa am ñu mu sonal maman yooyu dafa am ñu mu sonal. vraiment lii moom ñi may wax ñu aussi ko xam nañ seen bopp <laughs> duma ci wax. indi bee indi bee ci kanam ma woon la. dama damay <laughs> waaw waxal ci boobu ba pare ñu. jàll ci ñi ma koy laaj. Mhm. jarul ngeen ma koy laajati. Mhm, mhm. woo leen ma rek. ma daal di leen ko indil ba fi ngeen ne prix bu moins cher te neex. ngeen daal di am lu ngeen bëgg. dëgg a ma gën a nëw daal. avec kër jéeg tout possible waaye avec kër mama jonge rek <laughs> du ma si wax. waaw gis nga moom wane na boppam dafa am ñoo xam ne mama dañoo ñàkk ween. loolu am na. bu ñu buggee sol tay baas duñ ko mën. oo oh, sax bu baax mënuñu koo sol. il faut ñuy def ay morceaux si biir <laughs> mami Ndiaye bàyyi di dugal éponge bi da jox feebar. <laughs> waaw lii moom loolu rek ko tax a jóg macha allah da jiw mhm. diw moom tamit xam nga mu jël forme gis nga liñ ci bind pratiquement du yàgg. moom it day day dem mais nekkul lu muy rëyal. Euh, continuer ko boo waree génn. Mhm. mën nga ko def supposons nga am xew bëgg a sol sa mbubu mhm. euh, bëgg sa forme mu génn mën nga ko utiliser ba mu génn mais mhm. day dañ après parce que dafa am durée boo xam ne moom lay tenir rek taxaw après mu delluwaat pour wan la ne du dara loo xam ne daf ciy yàgg di la indil benn problème déedéet amul benn problème amul mhm. benn parce que ay muqueuse la rek dafa mel ni deru yaram tey mu mel ni pompe genre boobu la voilà sang bi lay kii am nu mu ko defee xam naa ne techniquement man comprendre na mais doo bëgg dugg ci yenn détails yi ñenn ñi di réer pour wan leen rek daal amul dara luñ ci xamante ne jaral mhm. na leen ko daal dëgg la nañu mhm. nañ ko parce que ñoo koy laaj ñoom ñi koy laaj rek ñoo tax ñu indi ko mhm. comme intéressé wul nag anyway amul problème mais ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon laaj moom man mi sax intéressé na waaw man xam naa ne di ci jël yow rek di nga ci laal <laughs> waaw boobu daanaka maman nag jaru indi parce que gars yi xàmmee nañ ko moom tamit. Mhm. waaw boobu café bi la café vitamine la. café vitamine la ah, waaw. kon bi tamit siggil ma lay seen. waaw ci siggil ma lay seen waaw non tegal noonu rek maman gars yi ñu nag ñoo ma gën a xamante. waaw tegal rek noonu waaw. gis nga bii nag maman waaw gis nga bii maman bi tamit pour ween la. pour wen la mm. moom tamit gis nga appareil bi. ni mu mel bokkul ak bee ba léegi. Mm-hmm. bi appareil la moom normal. d'accord même ñi nàmpal dañ koy jël. même ñi nàmpal dañ koy jël monté laiteuse la moom day yëkkati sa ween yi moom tamit gis nga appareil bi mu àndal. Mm-hmm. am na ñu koy def ci marché parce que benn jour maa ngi seetaan benn reportage ci benn télé de la place. Mhm. benn waay ju nekk ci benn marché Thiès bi di ko def. voilà moom da ko def ñu koy fay. ñu koy ñu koy ree waaw xamuñu mais nag ñu bëri nag ñu ngi yollee ko di ko dem di ko seet. <laughs> waaw balaa la cee rang beeg nëbbatu beeg yooyu di fekk ñëwal ci la maison kër gi boo ñëwee ñu jox la sa benn nga def sa armoire te booy xool kii paa bi noonu ñoom ñoo koy gën a dem defi man fi Séné Sénégal la la lay mooy loolu moom daal gis nga ñun tooñuñ kenn mm-hmm. ku mu intéressé mu ngi nii ku ci gisul sa bopp nga jàll ci yeneen yi rek du noonu mm-hmm. waaw kër gi yaatu na te yi la yàlla xam ne waaw yii nag moom lii moom xanaa Moussa lañ koy jëndal mu ciy foofu mm, non sore naag loolu maman ah. lii boo xamoon li muy liggéey ci jigéen macha allah dinañ ko joxaat cër bu baax waaw parce que lii boo xoolee pratiquement Euh, ci ci yenn structure médicale yi ci lañ koy jaayee. amoon naa benn cliente pare nee na ma moom sage-femme am daf ko wër ba tas. te amu gisatu ko woon. parce que après accouchement nit ñi dañuy soxla loolu la ñuy wax réparation péridinal mhm. dañuy soxla pour defaraat sa bopp parce que xam nga jigéen ak euh, processus mari kii yëpp. Mhm. ak euh, grossesse. ba ci accouchement mhm. pratiquement day am déformation qu'on se dise la vérité jigéen ni bu ñu xasee ba wasin sax dañuy mujj am problème ñii danaan la dama bëgg produit yoo xam ne daf may delloowaat ni ma mel woon dafa bari yuñ la ciy confier mhm. ñu dox ci parce que am produit ou xam combi comme bi peut-être da nga koy jël tey mu faj ko tey mu pour ah, quelque temps waaw kon mais yii moom daf koy réparer à long terme ah, jigéen ni ñoo koy utiliser mais daf dañ boule de geisha xam naa ñu baree baree bare xam nañ ko ndax macha allah xëj na yaakaar nañu woon ne sax war naa atelier ci nekkul balaa émission bi du jeex sax waaw moom xam naa ne gars yi moom xam nañ ko ñi ko xamut ku ma ci jël ma expliquer la parce que macha allah produit bu bu baax la moom mooy génne ah, ni si man daal mënoo ma koo expliquer wa non je ne ko expliquer. mais du doon de am problème vous De toute façon de façon boule de geisha mhm. les euh, gars ont ci yu mhm. reprendre mais ñi mais ne xamaguñu ko découvrir lu mu ne doon. pas mhm. ma wooyee ce li mu doon parce que ñëpp la waaw door am borom kër ba Masha'Allah, jigéen dafay defar boppam maman fu mu toll mhm. jigéen warul wàccee ay loxoom di fii laa toll ci jamono rek damaa war a wàcce samay loxo xaar dee mel ni mbaxal ba da koy bañ ah jigéen day defar boppam ba ba muy dee surtout waaw madame Thioye ci loolu nga daanalee man moom laay yëkkatee madame Thioye parce que lii yaakaar naa ne képp kuy jigéen bëgg lu baax rek war nga daw si fii mhm. ah, nga daal di koy expliquer wax ko naka la dëgg naa damay jigéen bu nekk war na ko am mhm. man ne war na am war na am. boule de guicha yi ñu am jëkkër. waaw noo xam loolu kay euh, mooy géej gi am na ndox. Mhm. maman man xale jigéen ñi xam nañ ma ci loolu non non bul sa sonn parce que lii buñ koy wax jeeg ji la ñu wax. lii ñu mu gën a concerné mooy ñi am doom ba pare donte benn yoon la. Mhm. ñooñu la concerné. pratiquement foofu la commencé tey ba ci ñi pare jur. ba ci ñi toog di noppalu ba ci mag ñi parce que tey jii pratiquement ñu ne jigéen moom mhm. ne defaru mooy li ma la doon wax te xam nga xale bu jigéen dafay am fu muy toll parce que mooy li ma lay wax dafa bari ay ndax dañuy ne séquence yi diggante fii ba fii mhm. lii la gaay di soxla digënté fi ba fële lii la gaay di soxla parce que lii mun naa ne moy second phase bi mais phase yu njëkk yi xam nga tay ku ñuy doora may jëkkeur pratiquement leneen ngay soxla yoyu comme lu melni ay lubrifiant affaire yoyu xamante na ak ñom parce que il faut ñuy accompagner nit ñi tamit parce que moment li nit ñi xamul dafa bari te xale yi tamit dañ sonn te amna amna sëy nokoy commencer daf lay traumatiser de sorte que doto sax bëgg ki nga mhm. nekkal ci ay métit ci ay yu métti yoy xaar frustration ak yoy mhm. de sorte que dañ leen wara a préparer bu baax baax ndax loolu moy tax finalement nga am envie loolu moy tax finalement nga tok nga dégg sa jëkkal nga topato sa sey surtout bu dé mhm. xalé tuti ñi may ak yoy daf ci am trop trop trop importance motax mané ma ne la fii kër jeej ku nekk ak sa boss ku nekk lo soxla ak sa bagage bop bo boo inshallah fi di nga fi fekk kon ku nekk amna na ku nekk man li ma gën a jaaxal. waaw maman dang maa dang maa dang maa dagg dama lay may dama lay mottali parce que gis nga loolu moo waral tey. Uh-huh. ñu ne man maay docteur Dieng est-ce que ah, yëg nga loolu. man nag yaa ma ko waa gaa. noo loolu du ma ko nangu xanaa xamoon ni man lañ jox chef jonge <laughs> noo jonge bi ak. docteur bi damaa damaa jonge bi ak docteur bi du benn xam nga li tax jonge bi day feebar te docteur bee koy faj. waa gis nga benn moo tax ñu def a def yow maay sa médecin dangaa jonge rek waaye boo feebaree maa lay pikiir mais yow yaa may pikiir may pikiiraate d'accord waaw d'accord naa jox naa la rôle <laughs> pikiiraate bi mais tey yow boo feebaree maa lay faj kon kon kon jonge bi tey jii xam nga docteur jeeg gi moo koy faj kon docteur jeeg gi mu ngi xaar ñépp macha allah tuddeewu ko nag sama bopp ndax wax dëgg yàlla nee naa leen tur boobu doon na am feneen fu ma koy dégg ñu ne ma fi nga koy dégg du foofu fii la parce que dañoo dundul li tax ñu tuddee la ko mhm. ku nekk ak sa médecin ku ne sañ na loolu ndax ku ne sañ naa tànn docteur am kon ñi ma ko tuddee ne maay seen docteur nangu naa luñ ma ci jox ma jël amul benn problème di leen xaar nag pour faj leen gis nga sama boîte euh, à pharmacie maanaam képp ku nekk rek fii mm. lay faj xoolal ku ci yeew rek na ñëw man li ma gën a neex xet gi may gilli fii daal moom man moo may rey daal man daal wax baaxul ku wax lépp sol but ci ku wax lépp ñu ne wax kat su la neexee ne damay lal but ci man daal lii laa gis ci àddina ah, gis nga maman li dara dara rek la waaw ci ci dara rek xam mhm. nga comme feem du jeex man ci sama marque rek waaw gis nga dafa nice mhm. dafa nice macha ni ko bëggee la ko ñëpp mhm. ma sama cliente sax yi nekk ci diaspora bi yëpp xam nga ñoom dañ bëgg marque macha allah ñun Sénégal bëgg nañ ko mais ñoom tamit macha te gis nga te dara coton la neex na ci tàngaay man xame naa ñoom ñoom xam nañ ma parce que xam nañ lu lu nekk rek qualité lay doon dafa dañuy soxla coton soxla wuñu polyester soxla wuñu nylon parce que mhm. vraiment du jamonom voilà du jamonom di sañsel néeg yi ba mu nice di def ba mu très bien parce que mhm. nee la lépp rek ci biir kër gi macha allah lépp ci la maison xoolal ma lii rek waa gis nga dox ndaje lépp lépp yi ci biir boobu bëri la ma yëkkati xam nga ne attan naa ko <laughs> te moom foofu laa fëlëg yaa yaa ko may boobu waa gis nga yëpp rafet maman yëpp rafet xam nga kees bi Moussa doon xool sànq franchement yëpp a nice man ko yëpp a nice di leen ci xaar nag ci tabaski bu baax parce que nag am lu bari lu ci dem sax vraiment ci korité bi mais madame Thioye mhm. pourquoi boo indee darab yu rafet di gën di jongoma waaw gis nga c'est parce que kër jéeg yi ci boppam dafa jongoma ah ci man daal bëgg naa lii man daal musu ko kenn musu ko bëgg naa lii boole ko xet gi ma nar a rey ci kër gi xet gi bàyyi ko kenn xet bi kenn yëgu ko voilà mais madame Thioye mi ngi mel ne dañoo egsi ci li nga xamante ne moo di cappaandawu émission bi mhm. mais li nga xamante ne moo doonoon thème dem tey mhm. mu mel ni que am na loo xamante ne nii jot nga ci cee dund mhm. mu xaw a méngoo mhm. boo amoon tuuti loo ñu ci sànni lan nga ñu ciy wax waaw maman loolu tey boo ma ko laajee dinaa ci sawar ba pare dafa dul sax doon benn ni ñaar xanaa gëm rek tànn ci benn indi la. dëgg la te damay sax xool ne bi ci gën a recent laa la war a indil ndax dama ci dudd histoire bu récente léegi. ñëwal presque ci soo ba léegi maa ngi ci ci réglage problème boobu. Ah di ko nag sant yàlla parce que man dama tolluwul nenn pour defar sa yi. dëgg waaw mais tey dañuy toll foo xam ne xale sax bu ñu waree def dara dañ lay woo bu ñu defee bêtise woo la. xale bu ci bu jigéen bi ci boppam woo nañu ne ñu. Mhm. dafa def bêtise ndax li tax mu def bêtise mooy dafa am benn waay bëgguma tudd du corps de métier mu nekk. dëgg la voilà bu ko woo ci kanamu jëkkëram. Ah jëkkëram piqué ci crise de nerf indil ko ci problème ba xaw na ko fase sax si saa si waaw. problème bu rëy la maman hmm? problème bu bu bu rëy la ñoom ñaar ñu dëkk rek nekk ci seen appartement hmm? duñu am sax ku leen tempéré bu jigéen ki waxee jaar ni góor gi wax ki jaar ni xam naa pour bañ sax problème bi grave ku góor ki dafa mujj sol ay dàllam dem yoonam hmm? ba pare won ko ne ko ngoon sax suma ma wàccee maa ngi dem dinaa dem liggéey mais ngoon sax su ma wàccee bu ma séentu doo ma gis maa ngi dem sama yoon. ah bon waaw. kon problème yu mel noonu yaa ngi koy jànkuwanteel bu nekk affaire bu doy waar non maman li ma ci yor ay tonnes la. li ma ci yor ay tonnes la damay mhm. xëy. nekk ci problème yooyu di ko dund ba finalement dootoo sax xiif mhm. yàlla rek laa koy seereen may dolliwaat sama sœur boobu sama ñees sama doom lu mu bëgg ma doon ci moom mhm. ma ko ñaan yàlla di ko di ci ñaax tamit ñi ci des moment dañ war a moytu ku mhm. amul jëkk sa dafa war a moytu jël jël numéro téléphone def ko def ko étiquette yéreem fu mu romb bàyyi ko fa jàll fu mu romb bàyyi ko fa jàll ñu di ko woo partout te xam nga maman noonu dafa bari seytaane waxul dëgg waa yàq na xel mhm. te xam nga kooku tey bu ci sëyam tasee dinañ ne dafa am far jëkkër ji découvrir ko dëgg la kenn du ko dindi mhm. donte erreur la kenn du ko dindi mhm. lu mu sàggan bay jox kenn numéro ba mu koy woo na mu wuyoo ki ko woo téléphone ci kanamu jëkkëram moo indi scandale dëgg la parce que tey góor boo décroché sa téléphone muy moom bu sa jëkkër toogut sax war ngaa wax ak góor boobu wax bu rëy boo xam ne tey moom bu coupé téléphone am wala balaa ngaa pare sax mu coupé dëgg ndax nit bu la ñemee rek ci ni nga doxaleeg moom la. dëgg la xam nga dara ci métier bi ma nekk. Mhm. yaa ngi gis façon appel yi may jot. am na waaye ku ma woo duma ma wooyaat. Mhm. parce que nit ñi dañuy teste rek. ñu bon ñi dañoo bari te ñoo yàq ñu baax ñi. Mhm. nañu moytu bu baax loolu te àddina xam ne dafa gudd tànk. te lu yàqu tey mën na am dootuñ ko mën a defar te réputation dafa jar a sóoraale. muy doon lu métti ci xol maman ndax dalay lenn ay erreur yu bari sëy tas na ci. mu nekk loo xam ne tey jii xëj na suma classe gi nga xam ne toll tolluwuñ neen buñ ci doon fekkee wala ñu ci yëg dinañ ci mën a jéem li ñu mën ba fu mu yëg mhm, dama ragal relation bu yàqu maman mhm. ndax ménage dafa sacré mhm. may ñaan jigéen ñi ñu delloo si seen xel yi bu baax a baax ci loolu xam naa dinañ ne dama leen a xaw a clash fan yi mais du loolu c'est que problème yi dafa bari te bu ñuy xool ñun dañ cee ëppale responsabilité ci angle yépp may ñaan yàlla ñu delloo si ci xel yi di réfléchir avant ñuy def di bàyyi xel suñu nawle ñu nekkal ci biir kër gi ndax góor sax xëj na góor la mhm. am na lu ko yàlla may te xañ ñu ko ñun ndax moom bu ko neexee takk ñeenti jabar mhm. portable boo ci gisee jigéen envoyé ko message bu la nee bu ko neexee ne la dama koy takk xam nga am na ci droit mhm. yow nag amoo droit tey sa jëkkër gis message ci sa téléphone wala góor woo la mu yem ci nga ne ko sama far la sañoo ko xalaatoo ko moom am na lu liberté boobu yow amoo ko mhm. ne la ko yàlla xañee àdduna xañ la ko xañee ko sa bopp mhm. te xam ne li ma leen wax ku ci nekk sa yëfay sa yëf ku ci ne na góorgóorlu gérer yëfam kër gi neex man loolu laa wax maman man daal bëgg rek laa wax voilà man daal bëgg naa loolu rek laa wax macha allah waa loo ñu tàggatoo nag am na solo li nga wax nii mais loolu nga xamante ne ni moom nga ñuy tàggoo maman di wax ne nañu fonk borom kër yi rek mhm. comme te yaa ma indil borom kër mhm. nañu fonk borom kër yi te xam ne sëy du màgget mhm. sëy du paralysé sëy du feebar yépp boo ci bàyyi place rek mu indi leneen parce que loo doon doon mag nekk soxna taxul nga retraité tant que deewoo loolu am waaw sa sëy boo ko foyee ba mu commencé am problème yow ci sa bopp am nga problème ndax ku ne xam na ne problème ku ko am du nelaw te kër gi bu neexee trop jàmm na ñooyu dëgg la ah, ataay waxtaan bu neex beeg kaf beeg ree beeg jaagar jaagar ji mu ngi noonu jàmm gën jamaa kon nag ku dul xam kan lay jeex comme niñ koy waxee loolu soo ca neex nay neex ba yeer gi passé lool sax laay wax lu du lu lu neex daal maman <laughs> du ëpp tëddul tëddu euh, doy xaw ma nuñ koy waxee nañ jéem a yokk rek <laughs> fexe luñ ci am tey bu ëllëgee ñu am lu ko ci ëpp parce que àjjana kese la macha allah <laughs> euh, warlu ci sa sëy Euh, naka laa koy waxee volontaire ci mhm. du ñàkk fayda liggéey sa àjjana yi ëllëg la mhm. ak sa àddinay njaboot kon nañu góorlu ba nga xam ne yàlla dina ñu yokk xiir ci loolu mhm. lépp lu ñuy taxaw pour yàqal ñu suñu sëy ñu séparé wu ak loolu parce que àddina yàggul mhm. te liggéey buy gaaw feeñ la te nee na njeegi dafa gaaw waaw kon nag macha allah maman loolu rek laay maye mhm. dina jëkkër du morom sang la jëkkër du morom sang la jëkkër du morom sang la kon nag nañ leen jaamu rek tarbuy leen waaw loolu laa leen di tàggoote madame Thioye comme ni ñu koy defee saa si ne damay naan amati na solo ndax ni ngeen koy gisee nii yemul ah, dafa nekk ki nga xamante ne nii dale day day jël temps am di wax ak yow di la conseiller maanaam sëy boo xamante ne def na nii la gannaaw yàlla yonent bi dala ciy jàppale ba mu daal di taxaw ngeen nekkaat ci jàmm dafay jiboole dafay def lu ne ba tax na nag man ah amatuma dara lu ma leen lu ma leen di wax lé yaakaar naa ne lépp lu ma waroon a wax sax ma madame Thiaw wax na ko sama xol dafa fees ndaxte képp kuy jigéen nga déglu li nga xamante ne loolu la madame Thioye wax rek war ngaa jàng bu baax a baax fi laay jaaree nag tàggatook yéen ci émission bi nga xamante ne moo di nekkinu jigéen gis ngeen samay bagage ak maa jonge mais sànq ba léegi maa ngi leen di wax am na luy xeeñ fi te gëmoo leen xaar may leen ma tuuti rek ànd bi sama kër la jël <laughs>